docteur Ismaïla Diallo ñu ngi lay nuyu. oui fay naa la fay naa la yow député nga bokk nga itam ci groupe parlementaire bu coalition Yewwi Askan Wi en même temps yow yaay coordonnateur départemental bu gin gi neew déjà li ñu war a waxtaanee honorable bokk na ci euh, coow li bu ma ko mënee wax noonu critique yi déjà bari na appel à candidature bi nga xam ni moom ngeen woote woon ñu ci bari nee nañ respecté woo leen ko wala da nga jàpp ni li ni mel ko mu ngi seen bëgg-bëgg la ba tey. waaw waaw balaa may egg si loolu waaw may fàttali eh, ñi nga xam ne ñoom ñuy déglu rek man maay honorable député docteur Ismaïla Diallo nekk ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi mais également nekk coordinateur départemental Pastef bu Guinguinéo waaw loolu gis naa coow li jóg lool lool lool lool waaye amul lenn ci loo xam ne te la ñu waxoon wàcc nañ ci ndax ah, ñun waxoon nañ ne am na ci yoo xam ne am na ci poste yoo xam ne poste de direction yoo xam ne wax dëgg yàlla dinañ fexe suñ koy joxee ñu def euh, ubbi ko pour sénégalais bu ci nga xam ne moom lay moo ko moom moo ko war a mën a jël te am na compétence su jël ko itam ñu jox ko waaye nag am na ci yoo xam ne wax dëgg yàlla nag ñi nga xam ne nag ñoo bokkoon suñu Pastef ànd ak suñu allié su amee loo xam ne kat am na ko koo xam ne mën na koo téye dañ ko koy jox ndax bu ngeen seetloo nomination yi ñu ñu jox ñëpp de parce que mën nañ koo téye moo tax ñu jox leen ko boo ko nattee ci Waly Boña mën na koo téye boo ko nattee ci Cheikh Bamba Dièye lañ ko jox mën na koo téye boo ko nattee ci Cheikh Dieng li mu liñ ko jox mën na koo téye boo ko nattee ci Fadilou Keita it mu jox mën na ko téye Marie Rose ak ñoom Jamila Ibrahima Diallo ay ñoom Basirou Kébé yëpp ku ci ne dañ laa jox fi nga xam ne yow am nga njàng bi am nga xam-xam bi waaye am nga tam probité bi il faut pas il faut jamais oublier ça parce que tam CV bi lu mu rëyee a rëy tam dañ leen xel nit ki comportement nit ki taxawaay nit ki parcours nit ki. ndax fu boo seetloo Basir kii ku ñuy wax Bakary Bathily mais moom APIX def na fa 15 ans def na fa 15 ans. d'accord boo jëlee ba si Fadilou Keita ñaata at la dekkoon CDC ah donc yooyu ñëpp c'est parce que dañoo ci foofu ñu leen jox c'est parce que dañ koo mën a tax ñu jox leen ko. ñu ne ñuy jox ñu ñu nommé dañoo xeex ay récompense la. déet récompense mënul am ci Pastef récompense mënul am ci Pastef Pastef nee naa la solo les compétences lañ ko joxee. mais également solo leur probité morale lañ leen ko joxe. kon mun naa jàpp ni euh, li jëm ci appel à candidature yenn ci ay postes nekkul lu ngeen fàtte. déedéet yekk yekkul lu ñu fàtte waaye nag am na si yoo poste yoo xam ne moom wax dëgg yàlla ñun moom dañoo oh, et puis et puis il faudra ñu rappeler Sénégalais ba ñu yëkk suñu loxo ne dañoo mën nañoo téye réew mi c'est parce que mën nañoo mën nañoo téye réew mi. donc am na ñoo xam ne mun nañ leen mun nañu ànd ak le le premier ministre Ousmane Sonko ànd ak le président Bassirou Diomaye Faye pour liggéey réew donc ñooñu ñoo ngi yoon Pastef ñii ay alliés la ñu woon et ainsi de suite. déjà liñ jëm ci wàllum projet bi euh, projet projet ñenn ñi sax ñu ngi naan projet bi est-ce que réellement existé na Ismaïla Diallo. ah projet bi moom am na. <laughs> changement changement systémique parce que nag à l'origine ñun on avait diagnostiqué dañoo seetoon li nga xam ne moom moo am doon jafe-jafe depuis 1960 ñu indi ci ay solution rawatina ñu bind programme tuddee ko projet te commencé nañ ko lool ndax président de la république démissionné na Pastef loolu ci projet bi la. Mhm. li tax mu démissionné Pastef dafa bugg a féetee kaw nekk le président de tous les sénégalais moo tax mu démissionné poste électif yi kuñ dox ministère nee nañ démissionné fa nga fa nga newoon biram su lay démissionné na fa mu nekkoon Ousmane Sonko démissionné na fu mu nekkoon kon kay loolu ci projet bi la bokk nee nañ aussi tamit bonne gouvernance nañ fexe ba rapport yëpp ñu génnee ko ñu seet la nga xam ne jaaduwul ñu yóbbu ko ci justice mu seet ko loolu kay ci projet bi la bokkoon nañ fexe képp koo xam ne tamit jox nañ la na nga jub na nga jubal waaye tamit ku koy ku ñëwoon tamit fekk ne yoro woon mandargo itam ñu jubbanti la loolu tamit ci projet bi la bokk waxoon nañ tamit assemblée nationale dañ koy jox mu xam lu ko yóbbu assemblée nationale mu xam mission loolu tam ci projet bi la bokk. maanaam euh, li jëm ci rapport yi nga xam ni daanaka ñu ngi koy fësal da nga jàpp ni mooy li war mënuñu woon def leneen. mooy lu war ba du war ba du amati sénégalais bu ñu jox euh, li nga xam ne moo ko xam nga yow ñu yow sénégalais bi ñu jox la ay privilèges. Mhm. mun naa ko natt man député jox ma salaire jox ma carburant. oto sax ñu tegal ma ko nag mooy bëgg cee dolli leneen fekk sénégalais yaa ngi sonn loolu moom dafa jaadool ci réew loolu moom day dakk léegi nag rapport yi bu génnee ah ça va servir de leçon pour tout un chacun de parce que tam bu ñu jàpp rek ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon réew mi rek la ñuy xool lañ ko yoree woon waaye ñun sax dañu saytu parce que rapport yi xaar xam nga loolu waaw ñu ñuy xaar waaw waaw waaw ñun ñuy xaar te xaar wi man am naa ci yaakaar lool ndax waa Pastef ak ñi ñu àndaloon mooy suñu allié xam nañ fi ñu jóge xam nañ liñ di wax xam nañ xam nañ li ñu waxaale ak sénégalais te ñaar yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk tey ji euh, bopp réew mi boo jëlee président Bassirou Diomaye Faye boo jëlee euh, le le premier ministre Ousmane Sonko bu dee jub mu ngi ci ñoom ba fees dell bu dee jubal aussi tam mu ngi ci ñoom ba fees dell waaw moo tax kon ñooñu bu ñu taxawee ne dañuy jubbanti ñun mun nañ yaakaar am yaakaar si ñoom ne mun nañoo jubbanti d'accord honorable léegi li jëm ci euh, wàll woowile ñu ngi wax li nga xam ni itam moom moo jëm ci pat chasse aux sorcières euh, amul singali nañ àtte ñu xool lu yoon wax ci mbir mi ñu daal di koy def. Euh, bu ngeen gisee doxalinu tey jii le président Bassirou Diomaye Faye ak doxalinu premier ministre Ousmane Sonko nga xam ne jii nekkuñ ci yooyu sax amuñu jot yooyu sax léegi nag wax dëgg yàlla ñun dañoo mus a wax ne ne justice dafay am indépendance bi ko war. bépp dossier bu wàcc ci procureur ah wax dëgg yàlla fañ ko war a jaarale ko mu def liggéeyam ñun kenn du ci dugg bu dee seet nañ gis nañ ne deful dara ah sénégalais dañ koy bàyyi mu dox soxlaam dañ ko war a sax parce que nekk ci nguur bëggee na ñu seet la wax amul lenn loo xam ne mun lañ la ko toppee wala ñu jiiñ la dara seet ko gisuñu ko ah wax dëgg yàlla kooku moom wax dëgg yàlla dañ ko war a applaudir xam ne ne kat kooku ci ñu jub ñi la bokk dañ ko sax war a dugalaat ci nguur gi mu liggéey waaye bu fekkee nag wax dëgg yàlla nag la dañ laa dénkoon te la nga dañ la dénk wax dëgg yàlla la da nga war a taxawee taxawoo ci nag ah yat bi dina dal sa kaw. Covid 19 bi rapport bi ñu ngi koy xaarati ah fond force Covid 19. Euh, euh, defoon na fi débat ah. Hmm. boobu nag moom daa war a ñëw boobu parce que boobu ci moment yi métti la ñu fekk kooku sénégalais bu ci def lem lu mu ca def nag na xam ne la ma def ñaaw na rafetut yàlla santaane wu ko yàlla bëgg mais dañ leen di jox présomption d'innocence. bien sûr bien sûr bien sûr moo tax ñeneen justice moo war a def liggéey ma ne sénégalais bi ci def bi ci def laa wax xaw ma ndax def na wala deful mais bu ci def na xam ne li mu def ñaaw na rafetul d'accord yàlla bëgg euh, ñaaw na rafetul beneen bi bokk na ci déjà ci assemblée national gis nañ euh, bataaxal bi nga xam ne député benn Bokk Yaakaar yi jibal nañ ko euh, dinañ liggéey ni mu waree esprit républicain waaye du am compromis du am compromission loolu lan lay lan moo ci sa xalaat loolu rek boo ma ko gisee damaa sant yàlla boo ma ko gisee dama ne alhamdulilah ñun koy ñun fii lañ ne woon boobu ba tey kuñ ci fekk suñu jël affaire yi soxlawul loolu ñun député yi dañoo am suñu cuggalu guy dañoo am nekk institution am suñu indépendance am suñu pouvoir am ay rôle yoo xam ne dañ ko war a liggéey def nañu jox ci rôle yooyu rek léegi nag euh, gouvernement bi bu yees la sénégalais yi ñoom ñoo tànn premier tour ne ñun daal kii lañ bëgg kii lañ bëgg programme am wax dëgg yàlla nag bu premier ministre bi ñëwee di def euh, déclaration de politique générale mooy fi nga xam ne dafay ñëw ne leen nii laa bëgg a nii laa bëgg a doxalee wax dëgg yàlla nag dëgg yàlla sénégalais yi nangu ko kon kat député yi ñoom comme que ñoom ñooy représenté sénégalais yi war nañu ko mun a nangu. ragaloo leen motion de censure. Euh, non yaakaar moom mun a am motion de censure motion censure day fekk nga am foofa teg motion censure bi xaw fu ñu koy teg parce que nag wax dëgg yàlla kii déroulé gul bu fekkoon ne dafa déroulé. bu ñëwaat di def déclaration de président mun na nekk ah yéen kat ñëwoon ngeen fi def déclaration de président waaye la ngeen waxoon yëpp dara gisuñ ko ci boobu motion de censure dina safe waaye moment bi motion de censure safewul parce que dara nekk ko ci table. coowal dissolution assemblée mënoo ci wax yow. ou coowal dissolution parce que nag il faut savoir que dans la constitution sur l' article quatre vingt neuf. Mhm. c' est clair que bu assemblée bi eh, amee deux ans le douze septembre. Euh, wax dëgg yàlla président de la république am na cuggalu guyam. Mhm. bu ko buggee di suuf mu di suuf waaw loolu moom lu wër la. mooy apprécier boobaa. loolu appréciation la. d'accord léegi nag ñun am na loo xam ne euh, assemblée nationale am na ci liggéey boo xam ne assemblée nationale war na ko def pour sénégalais yi mooy déclaration de politique générale bi war naa am. oui également euh, loi de finances rectificative mooy xam nga comme comme que budget bi fekkee wu ko woon. waaw. wax dëgg yàlla foog ñu xoolaat. budget bi jubantikuwaat ko hmm. jubantikuwaat am na ministère yoo xam ne dañ leen a supprimer supprimer budget yooyu ñu yóbbuwoon ci ministère yooyu foofu tam foog ñu orienté ko. d'accord te waxoon nañ aussi tamit am na institution yoo xam ne dañ ko bëgg ñu jóge fa. donc foog foog yooyu tam bu fekkee ne mun nañu ah, jël euh, mun nañu mun nañu ànd ànd bëgg-bëgg yooyu te sénégalais yi taxoon ñu choisir euh, la coalition Diomaye président. ñun député yi ñu ànd ceeg loolu loolu ba mu ba mu sotti bu ñu bëggee nag di suutu ñu di suutu ñu daal di dem ay élection waat d'accord képp koo xam ne yàlla dogal na nga mën a ñëwaat nekk député eh, nga ñëw nekk député continuer liggéeyal sénégalais yi. d'accord bu mujj bi mooy euh, dundu gu cher gi nekk na urgence nekk ni itam préoccupation nguur gu bees gi fi nekk laata le 15 mai jàpp nga ni lépp dina yemb bi yoon mën nañu am espoir am. volonté rek la loolu bëgg-bëgg la rek donc waaye bëgg-bëgg ñëpp la war a doon boo gisee le président Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am ñu recevoir patronat bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom ñoo ŋànk secteur privé bi mais également recevoir syndicat yi c'est pour que pour wax leen ne ñëw leen ñëw accompagner pour que vraiment dund gu métti gi nga xam ne fekk nañ ko fii ñu mun ko atténuer pour sénégalais yi nekk si jàmm ah kay mën naa nekk waaye ku nekk na nga def la nga war def jaay kat bi jënd kat bi ku ci ne na nga war a comporté woo na ko comporté woo bu ko defee njëg dund gi mun naa yomb sénégalais yi mun nañ nekk ci jàmm en attendant que ñuy réassister parce que il faut réassister parce que danaa ca dolli leen. xamoon na tam euh, ñun demoon ministère des finances ak ministère de l' demoon nañ ba rencontré waa FMI. Mhm. waaye dégg ngeen li wax waa FMI. Mhm. nee ñun ba ñu ñu ànd ak yéen ba ngeen collaborer ak yéen waaye suñu sañoon wax dëgg yàlla ngeen bay ñu suñu bopp. d' accord demal suñu bopp mooy ñun bàyyi la ñuy suñuy lempo suñ ci demee fu ñu toll lu ngeen mën a accompagner ngeen accompagner waaye ne leen bu leen jël suñuy leb ba pare ñëw di ñu leb di ñu rek ca leb yooyu dëgg yàlla dañuy gis ne après dafay nekk ci ndoddu sénégalais yi loolu wax dëgg yàlla euh, ci lañ bëgg a taxaw. d'accord léegi sénégalais yi dañuy taxaw te mu pare pour accompagner le président Bassirou Diomaye Faye parce que am nañ volonté vraiment sans Sénégal te yàlla mën na ko. lan ko yàlla def. lay sant di la gërëm bu baax a baax ni nga nangoo tontu suñuy laaj. di fàttali nii député nga bokk nga ci groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi en même temps yaay coordonnateur départemental bu parti PASTEF ci diwaanu gi Guinguinéo ci diwaanu gi Guinguinéo